Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki julit yi waxtu wi nu toll ku nekk gis na doomi aadama yi seen jikko yi ni mu yàqoo pas-pas yi ni mu yàqoo loolu li ko waral mooy xol yu yàqu doomu aadama bu xolam yàqoo lennam ci àdduna dootul jàkk léppam dafay yàqu léppay bon ñu laaj al imam al xasanul basri rahimahullah waaw mbir yi nekk tey ci àddina bi yow imam Hassan lan nga yaakaar ne moo tax doomu aadama yi toll fii ci ay xalaat yu bon ak ay pas-pas yu bon réer ak yàqute pas-pas yi dem ba ab doomu aadama ab jullit ñemee taxaw di wax ne yàlla dañ koo bind diw moo bind yàlla ba pare ne ko bu ma ci feeñ allahu akbar sunu borom wax ci alquran allahu xaaliqu kulli shay naka la nit di réere boo wax ne diw moo bind yàlla ndeke nit ñi réer nañ léegi ba foofu imam hasanul basri biñ ko laajee mu ne fasadul qulub mutawallid min sittati asya mu ne jikko yi yàqu yi moo ñu jural juróom benn mbir sunu jikko yi yàqu yi moo tax juróom benn mbir dal nu mu ne awaluha bu njëkk yuznibuuna bi rajaa i tawba dañuy moy yàlla di yaakaar tuub da ngay gis koo xam day def bàkkaar te xam na ne li muy def bàkkaar la xam na ne ci bàkkaar lay dund ci la nekk waaye lan moo tax mu koy def su ma paree tuub ma paree rek dinaa jégglu quoi garaawul doomu aadama su eggee foofu na yëg ne xol bi yàqu na ndax xol bi moo la waroon contrôler doo mooy yàlla léegi nag comme yow yaa ngi ci mooy yàlla te dara bàyyiwu la ci lu dul yaakaar tuub man de dinaa tuub su ma paree ma tuub léegi boo tuubee pare yàlla mu ne nangalu ma la nag te loolu lay demee ndax yàlla subhanahu wa taala ki muy jéggal ay bàkkaaram mooy koo xam ne bi muy def bàkkaar xamul ne li muy def bàkkaar la waaye koo xam ne moo ko tey xam na ne lii mu bugg a wax du dëgg xam na ne lii du benn pas-pas xam nga lu gën a ruslu benn borom xam-xam day wax ne iza kunta kazuban fakun zakuran bu fekkee da ngay fen sax boog na nga nekk fenkat bu muus su fekkee fenkat nga yàlla dalaa natt nga nekk fenkat da ngaa war a muus nga fen fen boo xam ne boog nit ñi dinañ dina bala ñu koy weddi boog dina yàgg waaye diw moo bind yàlla ana diw moom dee na kon koy bindul yàlla ana yàlla hayyun laa yamuut ana diw dee na bàmmeelam a ngi nii nga ne moo bind yàlla kon kay xam nga ne yow dëgg-dëgg da ngaa feebar boo feebarul woon doo wax loolu ah kon mbokk jullit yi waaye tey fi fi nu toll mooy noo ngi aaxiru zaman bu kenn dara bu mu leen bett ndax diine Omar la mu waxoon mooy dëgg diine ji di lislaam ku ko bëgg a dund te xamoo ko mooy yàqkat nga ci nekk bëgg a dund diine te xamoo ko da ngay yàq kon il faut ñu góorgóorlu delluwaat ci téere yi jàngiwaat delluwaat ci alquran delluwaat ci sunna yonent bi jàng lan mooy pas-pas lan laa war a gëm lan moo war a génn sama gémmiñ moo tax gis nga bañ lay jàngal iman dañ le na qawlun bil lisaan wa itiqaadun fi l qalb wa amalun bil jawaarih lu xol di fas la gémmiñ wax ko léegi nag bu xol bi fasee lu bon kon lan mooy génn ci gémmiñ lu bon kon jëf yi lu ñuy jëfe cër yi lu ñuy jëfe lu bon parce que li xol bi fas moo baaxul mu ne nit ñi dañuy def ay bakkaar lu ko waral yusnibuun bi rajaa it tawba su ma paree ma tuub waaw ni ko xale yu góor yi di waxee got nand tëla day jéggale quoi xam na nu mu demee tey loolu moo am ci sunu réew mi def ay bakkaar mag ak ndaw guddeeg bëccëg yenn saa yi sax nga fekk mag ñi ñu ne la benn fan la ma paree tuub benn fan la kese garaawul su ma paree tuub ñu fàtte iblis benn fan benn bakkaar la mooy yàlla yàqule iblis bi ngeen di gis benn yoon la mooy yàlla benn borom xam-xam yi nee nañ iblis foo natt ci suuf si sebre lii mooy sebre sa paawu loxo bii baaraam bu mag bi ba ci bu mag bi soo ko tàllalee nga natt ko ci suuf si fépp iblis jaamu na ko yàlla waaye lan moo tax mu yàqule benn bàkkaar la def keroog bu ko yàlla joxee ndigal ne ko su jootalal aadama aba wastakbara yàlla mu ne wa kaana min alkafirin benn bàkkaar aadama ak awa ñaata bàkkaar lañ am mbokk yi benn ba leen yàlla xoole ne leen wala taqraba hadihi sajara bu leen jege garab gi kon fa takuna min alzalimin mu ne fa azallahuma alcheytaanu anha fa axrajahuma mimma kaana fi fa qul nahbitu baadukum li baadin aduw walakum fi l ard mustaqarun wa mataun ila hin keroog la leen yàlla dégagé ba ñu laalee garab gi la leen yàlla dàq génn leen wàcce leen ci suuf ku nekk ci ñoom benn iblis benn ñun ñu toog fi ku nekk ñaata nga am loolu mooy sunu problème mooy yusnibuun bi raja i tawba mooy benn ñaareel mu ne wa yataallamuun al ilma wala yaamaluuna bi dañuy gàddu téere yi jàng yenu ko ba fees te duñ ci jëfe dara téere boo fi yëkkati sénégalais yi jàng nañ ko boo fi yëkkati laa wax nit ñi naan nañ ko yenn saa sa nga gis ku ko këru di doxantoog moom waaye bu jëfe jotee doo gis kenn jëfe loolu mooy wax bi wa yataallamuuna al ilma dañuy jàng xam-xam rek pour wax ne man jàng naa xoolal ki mokkal alxuraan te du dem fajar jàkk kooku lan la jàng ah ki mokkal alxuraan di carte GPMI naan sàngara dafi lu bon jëw njaaloo kooku lu ko alxuraan jëriñ ah jàng téere fiq yëpp da ngay dugg ci jàkka yi benn problème am nga gis fukki nit yu jóg yoo xam ne ñii yaakaaroon na ne xarf fanaan na seen bopp ku nekk di wax masala bi waaye jëfe doo gis dara loolu mooy sunu problème wa yataallamuuna al ilma wala yaamaluuna bi loolu day yàq xol xol bu nit di def bàkkaar yaakaar tuub di jàng te di wax ne du ma jëfe loolu moo am waaw ngay gis kilifa yu mag a mag yi ci ñoom ngay tàmbalee ñi ñuy wax kilifa diine nga dugg seen kër yi fekk jigéen ñaa ngi xeesal di def bopp neen greffage mais sol yu bon nga wax ñu ne la diwa la gën a jàng waaye gis nga moom sax jëfewu ko yow nga nekk fi di wax dimbali ñu suñu waxee diwa la gën a jàng te jëfewu ko mooy musiba Sénégal son naa wax ak benn waay ma ne ko takkalam góor du ko def mu ne ma sëñ diw day takkalam te moo la raw su araamoon du ko takk ma ne ko law kaana al ilmu min duni tuqaa sharafan la kaana xayru xalqillah iblis mu mer bu fekkoon ne am xam-xam rek day tax nit ragal yàlla kon iblis ragal yàlla ndax moo fi raw law kaana al ilmu min duni tuqaa sharafan la kaana xayru xalqillah iblis te kon ne ko am xam-xam ragal yàlla iblis mooy pee ndax moo raw ñëpp moo fi jiitu ñëpp moo fi jiitu sax aadama moo fi ëpp xam-xam waaye lan moo ko dégradé lan moo ko wàcce mooy am xam-xam bañ a jëfe yàlla ne ko jëfeel mu xam ne yàlla mooy yàlla yàlla ne ko defal mu lànk waaw loolu mooy problème am mbokk yi ñetteel bi mooy fa ida amilu laa yuxlisuun suñu jëfee duñu sellal allahu akbar suñu jëfee bu dara des lu dul jëf jàng nañ xam nañ léegi jëf moo des dootuñu def ngir yàlla def ngir nangam wax ngir nangam dox ngir nangam joxe ngir nangam dootul nekk ngir yàlla te yàlla moom lépp luñ ko boolewul yàlla da ciy génn ana agna ashraka ani shirki man amila amalan ashraka maay fihi gayri taraktuhu wa shirkahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dafa ne damaa doylu képp ku jëf ci yéen benn jëf nga boole ci keneen ku dul man yàlla nee na ma génn ci bàyyi laa kooku ba ma xool ndax kooku la moo tax dëgg dëgg dëgg ñàkk a jàng alquran ci réew mi musiba la wala ñàkk koo dégg jàng nañ ko sax waaye ñàkk koo dégg bi musiba la naka ngay taxawee li waa ji waxoon tiim ci benn bàmmeel naan borom bàmmeel bi visa laa bëgg visa dañ maa convoqué visa laa bëgg benn waay di xool waa ji ba caag mu ne ko yow koy ñaan mu ne ko sëñ bi mu ne ko dafa dem Dakar mu ne yow xaaral nga dof yow nga man di tiñ ci bàmmeel bi kii dee fii nga ma koy ñaan nga ne ma dafa dem Dakar mu ne boo gëmoon ne daa dee kay doo ko ñaan ku dee nan lañ koy ñaanee ku dee ku dee naka la ko nit di ñaanee moo tax yàlla subhanahu wa taala ci quran bi ma fa ne waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyama kan moo gën a réer mooy ki taxaw di woo kii nga xam ne kii muy woo du ko wuyu ba yawmal qiyaama te pourtant loolu leer na de ku ko weddi si ñun rek boo sëlmalee jubala armée li Pikine yi sa papa bi fa tëdd nga taxaw di ko woo nga yaakaar ndax dina jóg dafa la dina la wuyu du ko dégg dafa dee sooy ñaan ñaanal yàlla hayyun laa yamuut xoola yàlla lu mu wax ci quran wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daan muhammad gaa ñi buñ la laajee man yàlla fan laa nekk ne leen damaa jege ba ku ma woo rek ma wuyu la waaw yàlla bu ne damaa jege yow nga bàyyi yàlla ngay woo keneen te ki ngay woo xam nga ne déggu la xam nga ne nekku fi xam nga ne dafa faatu bi mu faatoo danaan sang boppam bi muy dund bi mu faatoo dañ ko sang moo daan solal boppam yére dañ ko sang dañ ko yeew dañ ko jullee dañu ne gaaw leen sax balaa nit ñi ñëw gaaw leen balaa nit ñi ñëw waaw kilifa dayee Sénégal dañuy gaaw balaa nit ñi ñëw foofu sax am na lu ñu lay xañ Sénégal ngay gis kilifa gu dee kenn du ne yàlla na ko yàlla yërëm dugal ko aljanna déedéet kenn du la ñaanal maghfira yal nañ yàlla taas ci ay barke yal na yàlla yokk leer day nelaw yooyu rek la ñuy wax ñu jox la micro nga ni allah allah yow waay waay waay suñu kilifa gi yal na ko yàlla yërëm ay boo ko waxee ñu ne kii def dañ lay xoolaat ah kon yàlla da koo yërëm ba pare hatta sallallahu alayhi wa sallam dégg la ñu ne dañ koy ñaanal yal na ko ya suñu ne muhammad ñu ne sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy lan mooy yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko dañ koy ñaanal ñun nag ñu fexe ba suñu kilifa yi kenn dootu leen ñaanal benn ñaareel mooy kenn du leen julle lu dul ay ñetti sàppe ñetti nit juróomi nit te yéen bi nag xoolal rek ñetti sàppe 40 personnes suñ la jullee ñëpp am aqida bu set nga dugg aljanna duñ bàyyi dëkk bi yeewu duñu bàyyi ñu woo nit ñi ñu ne kilifa gi génn na àdduna jàkka ji fees wala penc mi fees ñu ñaan jullee amaana am na ci kenn ci mbooloo mi ku yàlla di nangu ñaanam man de ku dégg faatu naa te ñëwoo du ma la ko jégal waaw sama kilifa gi daf ma doon wax ne bis bu ma la jiitoo àdduna nang ma ñaanal yàlla yal na ma yàlla tabbal aljanna yal na ko yàlla tabbal aljanna loolu mooy dëgg doomu aadama da ngaa soxla ñaan addua huwa al ibada addua silaahul mu'min ñu ne léegi ñun kenn ñooñu kenn du leen ñaanal koo fi jox micro ne waxal yal na yàlla taas ci barkeem yal na yàlla yokk leeram yal na rek kenn ngay dégg waaye allahumma igfir lahu warhamhu bi yonent bi doon wax wa sabbit mantiqahu inda sual doo ko dégg pourtant loolu la ñu war a ñaanal ku dee ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa indi nit ba ci armeel yi ñu teg ko yonent bi xool gaa yi ne leen istaghfiru li axiikum haza fa innahu alaana yusal jéggalul leen seen waa ji de heure bii ñu ngi koy laaj allahu akbar wallahi waa Sénégal danañ am betteel ëllëg danañ am gàcc suñu sànnee li Muhammad indi sallallahu alayhi wa sallam danañ am gàcc ëllëg suñu sànnee li ñu yonent bi indil ku nekk nangu nañoo jël li nga indi ba mu des Muhammad benn waaye nee na léegi léegi bi may ñëw ci jumaa ji waaw waaw allahu akbar nan leen yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yenent bi ne jéggalul leen waa ji ñu ngi koy laaj sahaaba yi ne lu ñuy wax gis nga pourtant ku nekk ci ñoom mënoon naa jàng yaasin fanaan na seen bopp wala fanaanu fa ku nekk ci ñoom mënoon na jàng baqara fi mu taxaw mi ngi fa woon wala nekk fa ku nekk ci ñoom mënoon na jàng qul wallahu mi ngi fa woon wala nekk fa daf dañoo ne yonent lu ñuy wax gis ngeen parce que ñoom bugguñu def bidaa bugguñu indi lu yonent bi indiwul waaw bugguñu indi lu yonent bi indiwul yonent bi saa salaam ne leen wax leen yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko te dëgëral làmmiñam buñ koy laaj allahumma igfir lahu warhamhu wa sabbit mantiqahu inda su'al yonent bi loolu la ñuy indil bu ñuy suul bu ñuy suulee nit loolu la ñuy wax waaye xoolal tey demal ci armeel yi da ngay gis ku dëgër fit ñoo ne rew demal ci bopp yi barki démb dañoo am mbokk bu wàññeeku fi ma koy sàngee pare gu ma la ñaari nit ñoo ne ba pare nga ma ne des na tuuti ñu ne boo paree dañuy dañoo soxla néew bi may lu ngeen ciy def ñu ne boo paree rek wax ñu ko ma pare ne leen pare naa kenn di taxaw fale kenn taxaw fi kii di- ku nekk di jàng ay saar ñu pare ñu ne waaw yow gis nañu nangam nangam sa taxawaay léegi dañoo bëgg bu ñu demee armée la nga defal ñu nangam ak nangam man leen mënuma ko ñu ne léegi nag ma ne ul leen ku leen ko defal man moom du ma ko def parce que bidaa la du sunna li yonent bi indi dong doy na dañoo bëgg lu am barke dañoo bëgg lu baax dañoo bëgg loo xam ne buñ ko defee waa ji dugg àjjana li yonent bi indi moo ci gën a gaaw wallahi moo ci gën a gaaw ku am nit ku faatu wala da ngay tudd wala da ngay takk wala da ngay loo mën a def wallahi li yonent bi indi woon ci place boobu li mu def moo ëpp barke yow li nga fa bëgg a def gisoo imaam ahmad lu mu wax mu ne man hadis buñ nee wérul sax moom laa gën a wóoloog sama wax hadis bu wérul bi laay jëfe bàyyi fee samay wax ndax hadis bi dañu ne yonent bee ko wax donte ne wérut mu ne moom laa gën a wóolu ak samay wax man pour rek mu bañ a juum mbokki julit yi nañu yëg ne xol yi li leen yàq juróom benn mbir kese la bi ci njëkk mooy dañuy def ay bàkkaar yaakaar tuub suñu paree tuub dañuy jàng te duñu jëfe dañuy jëf te duñu sellal wa isa amilu laa yuxlisuun bu ñuy jëf duñ ko sellal nekk lu la neex nga koy defee sa yoon te mbir mi su sellul yàlla du ko jël moo tax yonent bi ne annaasu kulluhum halka illa al alimun ñëpp dañoo alku ñun ñi ñëpp alku nañ ba mu des ñu jàng mu ne wal aalimuuna kulluhum halka illa al aamiluun ñi jàng alku nañu ba mu des ñi jëfe wal aamiluuna kulluhum halka illa al muxlisin mu ne ba mu des ñi sellal mu ne wal muxlisuun ala xatarin azim ñi sellal ñu ngi ci danger ñi sellal di def ngir yàlla ñu ngi ci danger da ngay def dara gis ci sa bopp yàlla génn nga perte li nga doon def ak lu mu mën a doon nag lu mu mën a doon looy def boo ci gisee sa bopp yàlla génn bàyyi la nga perte kon ñetti mbir a ngi nii yoo xam ne tey jural nañu ay xol yu yàqu jural nañu ay jikko yu bon jural nañu jadd jural nañu wàcc lislaam jural nañu ñu dugg ci musiba yoo xam ne kenn xamul kañ lañ ci génn noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu wan ñu dëgg mu wërsëgal ñu topp ko mu wan ñu neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ñentel bi ci tomb yi mu ne wa yaakuluna rizqa allah wala yashkuruna ndeysaan dañuy lekk wërsëgu yàlla wa yaakuluna rizqa allah foo nu fekk wërsëgu yàlla la nuy dunde waaye bu cant jotee ñu sant keneen wala yashkuruna duñ sant yàlla loolu tey ci dëkk bi ñaata la su ngeen génnee compter leen baas yi ngeen di romb baas yëpp da nga dégg ñu ne dañuy cant kan doo dégg yàlla diw rek diw moom lu mu def ndax moo defar asamaan ndax moo sàkk suuf ndax moo defar jant bi ndax moo defar weer wi ndax moo defar géej gi ndax moo defar dex yi ndax moo sàkk guddi ndax moo defar bëccëg ndax moo bind góor ndax moo bind jigéen ndax mooy dundal ndax mooy rey kuy def loolu yàlla lu tax kon duñ sant kooku ndax yàlla waxul wa amma bi ni'mati rabbik ndax yàlla waxul wa ma bikum min ni'ma fa min allah xéewal gu ngeen mën a am nu mu mën a toll yàlla nee na ci man mi la bàyyi ko fa ma bikum min ni'ma la wax xoolal min ni'ma baat bi nakira sax la ko def min ni'ma xéewal gi nu mu mën a toll yàlla nee na ci man la bàyyi ko bàyyi ko ci ma sàmba bàyyiwul ci ma demba te xéewal googu wa in tawdu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen ko doon lim du du jeex du jeex kenn ku nekk ci ñun fi nga toog xoolal sam nopp bi rek li muy dégg bu fekkoon ne saa yoo dégloo bay tëdd ñu ni la facture ne la fayal boo jëm soo xoolee bay tëdd ñu ni facture ne fayal boo jëm ah allahu akbar pourtant am na ñoo xam ne fi mu nekk nii seen bët yi day yàqu ñu indi bët ñoo xam ne seen nopp yi day yàqu ñu dafa leen ay machine seen tànk yi yàqu ñu indi appareil waaye da ngay fay de ñaata million yàlla bi mu ñuy may bët kan moo fay bi mu ñuy defal nopp ku fay bi mu ñuy defal tànk ku fay bi mu ñuy defal loxo ku fay du tax duñ sant yàlla diw rek da ngay gis ku lekk ba suur géex daan na jërëjëf diw ana yàlla ana yàlla kon nanu sant yàlla subhanahu wa taala i'malu ala daawud shukran wa qalilum min ibadiya shakur yàlla nee na néew na ci jaam yi ñu may sant néew na nga fekk nit ku dugg ci ruq sujjóot di jooy sëlmal nga ni ko lan la mu ne dama doon sant yàlla aka aka jar sant yàlla yàlla war na occupé ci suñ dund ba lu nu am lu mu mën a doon ñu xam ne yàlla la du kenn xul ba passé dégg ngeen waa ji ki fas bi wéqoon bët yi toj jëb yi yàqu doom ji dee kër gi lakk ah yaramam bi yëpp yàqu tarawul ñu ne ko yow léegi lu fi des mu ne sant yàlla lu tax nga koy sant mu ne bàyyi na xol bi xol bi di ko fàttaliku bàyyi na làmmiñ bi làmmiñ bi di ko tudd mu ngoog il faut ñu xam ne xéewal suñ ko amee yàlla la ñuy sant mu ne ba ca tegu mu ne wa yardawna wala yardawna bi qismatillah nit ñi day gërëmuñu li leen yàlla may leen yàlla sédd gërëmuñ ko nanguwuñ ko séddale yàlla nanguwuñu ko wala yardawna bi qismatillah nanguwuñu yàlla lim leen may taraanga yim leen defal lim leen sédd ci xéewal ne lii la nanguwuñu loolu tey looloo ñu jural lu bare bari ci ay musiba ci ay giraawaal yu ñu dugg parce que nanguwuñu li ñu yàlla may nit day nangu li ko yàlla jox loolu mooy al xina bi ñu laajee yonent bi lan mooy xina mu ne xina nafs lan mooy koom mu ne li nga am mooy yàlla li la yàlla may mu doy la juróom-benneel juróomeel wala juróom-benneel bi yàqu xol yi mu ne wa yudfanuuna wa yudfanuuna mawtaahum wala yactabiruun dañuy suul néew yi te duñ duñu waaru nit day dee ñu wax la ko nga dugg oto ñëw anamu ñu ne mu ngi ci jàkka ji nga toog ñu koy sang sang ko yeew ko jullee ko sa kanam yëkkati ko teg ko ci oto dugal ko ci kees teg ci oto nga ànd ak moom ba armeele ñu gas pax ba mu xóot ñu suul ko nga dem ñibbi doo waaru doo ci jële dara léegi sax ci dëj yi nga gis fa la problème yi amee ci dëj yi nga gis waxtaan yi ci dëj yi la nit ñi di waxtaan mel ne kenn deewul léegi sax mbir mi seetaan la da ngay gis xale yi dañuy ñëw di seetaan nan la ñuy suulee ñëw di yërndu di xool nit ñi dañuy dem rek di seetaan yi waaye dee dootul def benn trace ci ñun loolu yonent bi waxoon ne wa kafa bil mawti wa'iza wa yudfanuuna mawtaahum wala ya'tabiruun dañuy suul néew yi waaye du jeexital ci dara allahu akbar sufyaanu sawri rahimahullah dafa am mbokk bu faatu mu ànd ak taalibeem ñu ñëw gas ba mu xóot balaa ñuy dugal waa ji mu ne taalibe bi kii su ko yàlla dekkiloon tey lan ngay gis lay def mu ne ah xam naa ne bu doon tardeel waxtu de dootu ko tardeel su fekkee daawul julli day dina julli su fekkee daawul jàng alxuraan dina ko def mu ne ko ndax mën a tile ko fi mu tëdd ne mënatu ko de mu ne kon yow mii ko mën bu mu la rëcc saa yoo yóbbee néew armeel yi soo doful dara dugg la war ngaa xam ne yow mii yow yaa ciy topp mbokki julit yi juróom benn mbir yi al imam hasanul basri nee na réew mu mu dugg yàqu xol ya loolu nag moo dugg Sénégal looloo tax tey pas-pas yàqu ndax xol yee yàqu moo tax façon langage ci diina ji ci lu nekk farfarloo lu nekk di nga ko dégg diw mooy yàlla diw moo bind yàlla diw moo gën yonent bi dëkku sàngam moo gën màkka euh, téere sàngam moo gën alquran diw sàngam moo gën yonent yooyu ngay dégg tey ku nekk di wax ñi naan yonent bi du modèle lu nekk tey ngay dégg te li koy li ñi koy wax li ci ruslu mooy ñoo ñëpp nee nañ ay jullit lañu looloo ci ruslu kon jamono bu ñu demee ba mu toll foofu yàlla doon na wax ci alquran alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla iza htadaytum alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla iza htadaytum góorgóoru leen ngeen jàpp ci seen bopp ngeen ngëpp ci seen diine su boobaa ku réer du leen lor yéen yéen ku réer du leen lor ku sànk ku war a dem safara yéen du leen yóbbaale loolu la yàlla doon wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci Qur'an tey nag foofu lañ toll ñun kon dana jaadu ñu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu pas-pas yi xoolaat li ñuy dund ñu yëg ne adduna bi lu mu xumb xumb farfarloo gii ànd bi yàlla dina ko tas te loo fi wax di nga taxaw ak kanamu yàlla wax répété waat ko ab jaamub yàlla bu faatu ba ñu rob ko mu dekk ci kanam yàlla te fekk moo waxoon diw moo bind yàlla mu taxaw léegi xoolaan xanaa xamu leen isa rek isa mii isa nga xam ne ulul azmi min ar-rusul keroog bañ ne yàlla la yàlla interpellé ko ci Qur'an ne ko ndax yow yaa wax nit ñi nañ la jàpp yaak sa yaay ay yàlla lan la wax subhanak ma qultu lahum illa ma amartani yàlla waxuma leen lu dul loo ma wax loo su ma ko waxee xam nga ko loolu la Isa wax su ma ko waxee yow yàlla xam nga yow yàlla gis nga ñii lang ma waxoon laa leen wax ba ma fa nekkee ah ba ma faatoo nag dem naa yow yàlla yaa fa nekkoon kon kay kooku du yàlla wa suma laag nag ñu naan diw moo bind yàlla diw moo bind yàlla diw moo bind yàlla ana mu faatu na anay way juróom faatu nañ anay maamam faatu nañ anay doomam faatu nañ ana yàlla ayna allah hayyun la yamut la taaxuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi l ard ñaata yoon lañ jàng aaya yooyu lan moo tax duñ delloo sibaar suñu xel lu tax duñu bàyyi farfarloo lu tax duñu wax jaami yàlla yi dëgg lu tax duñu wax nit ñi yàlla rek moo fi nekk yonent bi mooy rayukaay alquran mooy suñu téere kaaba gi mooy suñu qibla lu tax duñu wax loolu nit ñi ñu bàyyi nit ñi ñu jaamu ji yàlla ñu libéré leen moo gën ñu def leen ay jaam yeew seen tànk yi ay buum di leen dugal ci bokkaale di leen dugal ci bidaa ba ñu dee dajeeg yàlla yàlla dugal leen safara suñu borom subhanahu wa taala moo nuy nettali benn film ci film yowmal xiyaam yi ci ñuy toppe ak ñañ doon topp borom bi ne istabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'u al-azab wa taqatta'at bihim al-asbab yawm al-qiyam jot na nag ñiñ doon topp a ngi nii taxaw ñi leen doon topp a ngi nii yàllaa ngi nii ubbi nañ aljanna ubbi nañ safara malaaka yi jinne yi wër nañ malaaka yi wër waraat nit ñaa ngi ci digg bi allahu akbar yàlla mu ne hada yawmu lfasl jamaanaakum wal awalin fa in kaana lakum kaydun fakiduun tey de mooy bisu penc yéen a ngi nii dajale naa leen yéen nit ak jinne aca ku mën a fexe fexeel aca lu xew ñiñ doon topp ñi doon toppe ne yàlla ñun ñii lañ doon topp ñooñu ne eh yéen topp ñu leen te ñun topp ñu woon de yéen ñun sax xamuñu leen ñu ne ya yéen loolu ngeen ñuy wax yéen bi ñu nekk ci àdduna ngeen ne di ngeen poñe yàlla di ngeen ubbi aljanna far force dugal ñu ba ñu topp leen bàyyi yàlla ngeen ñëw fii tey ngeen ne mun leen lool. ndeysaan nga gis ñu doon toppaane ne yàlla law anna lana karratan ay yàlla boo ñu mayoon benn seconde rek nga delloo ñu ñun ak ñii àdduna ñii hi, allahu akbar wallahi lii may wax alxuraan la de bu ngeen jógee ngeen dem baxara da ngeen yaakaar ne damay def film dem leen baxara law anna lana karra yàlla boo ñu mayoon benn seconde ñu dellu fa natabarra'u minhum danañ leen jokkor bi duut leen baaraam ne leen hee ndeke yéen tos mënu leen ko xamu leen dara ngeen naan yéen ay yàlla ngeen ni ngeen ñu bàyyee tey danañ leen bàyyee noonu ëllëg yawmal xiyaam yàlla mu ne eh coow li bari na bu leen fi coow yéen groupe ñaari groupe yëpp safara ngeen jëm yàlla mu ne wa maa hum bi xaarijina minan naar wala loolu du alxuraan nan góorgóorlu musibɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hutba men hannde wonno euh, konnguɗi al imam hasanul basri ɗi o haali ɗi o maaki kanko ceerno mawɗo oɗo o wi holko tagi yimɓe ɓe ɓerɗe ɗe boni hannde yimɓe ɓe wayni o wi ko geɗe je- geɗe jeegom ɓe mbimo ko adi hen o wi ɓe- ɓe waɗay bakkar ɓe ɗamino tuubde mbaɗa bakkar samedi dimanche wiya astahfirullah mi tuubi aljuma waɗoya bakkar samedi wiya mi tuubi wadde bakkar e ɗaminade tuubde ɓe mbimo ko rewi hen o wi wa yataallamuna al ilma wala yamalun ɓe janggay kono ɓe gollata anana ye ceerno kaari ɓurma gandal kono ay o waɗani saabu o yiɗa hen feñde ɗum tagui kanko o gollata ɗum kay jarani omo jangga so tawi a defay a ñamataka e jarani a ƴoogay a lotta ko jarani a o defay tan ina rufa Eh, ɗum ala nafoore o ƴoogay ndiyam tan so wiyama na loota tan o o yuppa ɗum e ndu- o o yalta jarani jangde ma golle mi andu sa andi andin wa yataallamuna al ilma wala yamalun o wi wa isa amilu la yuhlasun heddiɓe kamɓe ɓe janggay ɓe anda kono soɓe golla ɓe watta hen ihlas ɓe watta ɗum saabu allah ko rewi hen o wi wa yakuluna risqa llah wala yaskurunahu ɓe ñaamay arsigi allah kono ɓe yettata allah holko ɓe yettata taaniraaɓe maamiraaɓe a ko kaari ko golle nene makko nene makko ɓooyi e oɗo galle il faut o daña ɗum a to allah woni wonmo nene makko wonmo nene mum ɓuri ɓooyde kay te dañaani kono wona neniraaɗo ɓooyɗo ko allah yimɓe yettay allah e ko allah rokki ɗumen ko o wi ko rewi hen ko wala yardawna bi kasmatillah allah so rokkiɓe ko allah rokkiɓe ko yonataɓe il faut ɓe ƴeewoya sernaɓe ɓeyduɓe ko allah waɗi ko mbiɗa sikki tan ɗum ɗo somi waɗi ɗum arsiga mo ma ɓeydo allah ko ɗum ɗo hokkuma ko hokkuma ko yo yone ala kono ma kaɓɓa ma gasa ma gubba ma jara ma lootoɗa beele arsigue o yaaja to allah woni ko rewi hen wa yudfanuna mawtahum wala yutabirun en ubbay mayɓe tan kono en ƴettata hen haydara wiyete mayɗo maayi tan yehen arten gasi to woni o ubbama gasi haydara en ƴettata hen yo allah hollu en gonga o arsina gin o arsina en ndewen yo allah hollu en meere o arsigina en goppen allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم انا نسالك قبل الموت توبه نصوح وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له